acteurs association au conseil de la collectivité Lébu li ñu dajale fii Tëngéej tey mooy boo ko dalee Ngor Wakaam jaar Ndakaaru Tëngéej Jalaaw dëkk yooyu ba jëndeer nit ñi ñoo toog xalaat xool bëgg a pour askanu lebu dajé biñuy dajé nak ñu xool xool nit ka nga xamante population yi fofu yépp mom moom boo ko rek gis sa bopp si Lébu gi ñu dajé pour waxtaan xool biñu xolé ñun ñu tan jiital ko mu nangu ko nangul ñuko ko te ñu doylu ko. est-ce que lolu fay war nek nekk péjuloo wala euh, xajulo bam ci askanu lu moom ngeen bëgg léegi mu jeex. sunu lolu moy suñu mbébat ñun far ñok ma samba xeexu ñok ma demba dañu bëgg dajël askanu lebu ñu dajé di yëkkindoo di dóorandoo lepp luy lu baax ñu ati ko andi ko pour lebu gi fepp bu lebu gi nara am problème ñu mëna waxtaan tok nak ñepp benn néegu nday la. loolu mooy loolu mooy suñu yéene. alors euh, est-ce que mën nañu jàpp loo tax tamit nga xam ne mooy jaraaf yu suñu jaraaf yu mi ñu tànn moom ndey ji seex la moom amul frontière fépp lay dem ñëpp lay waxal li ma la mën a wax mooy fu ne teg na fa tànkam ci askanu lébu te biñ ko jiitalee ba léegi ci loolu rek lay dox. fu mu ah. dégg am problème nit ñee koy woo mu faj def si li mu mën.